dem na ba ne dossier judiciaire am kenn du ko mu a gis ndax ma nga pale dañ koo récupérer ma nga pale xamul ni yor nañ ko mu dem ba naan trois avril bi passé ki nekkoon chef général d'état major des armées da doon waaj def coup d'état moom moo ko découvrir wax ko Macky moo tax kooku ñu dàq ko kooku tey mooy euh, acolytu Omar Maham Diallo nekk ci bureau am suba ngoon parce que nee nañ dañ may topp ci lan laa wax dama ne kii mooy nekk bureau Omar Maham Diallo dem leen déglu sama vidéo weesul lool tey nag wax naa lu ëpp loolu. lii mooy justice sénégalaise léegi de lii ma teg ci toujours ci loraange yoo xam ne Macky Sall mu ma koy teg saa su ne mooy. bu ñu nee salaamaaleykum mu waxuma la sama kër waaye sama koñ bi yépp lay tëj Sénégal yëpp ko gis sama doom du mën a dem école sama jabar mënul génn liggéey man su ma bëggoon dem boutique sax mënuma faa dem sama mbokk bu ñëw ñu ne ko doo ñëw léeg mu def ko ñaari fan ñetti fan tëj noonu sama koñ di sànni ay grenade dëkkandoo yi lu ne ñu koy daj ma leen di jéggalu ñoom ñëpp di leen balu àq loolu mu koy def ci loo xam ne amul benn décision de justice nee na man saa ñu ma convoqué nit ñi dañuy génn di ma gunge waaye waaye Sénégal Macky Sall bi ñu ko fi convoqué jamono Ablaye Wade nit ñi gungewuñu ko woon muy daw sens interdit naan ma ngay dem uyu ji est-ce que da koo dóoroon wala da ko tëjoon yéen ñëpp gis ngeen ni ñuy dalee sama kaw àdduna yëpp a gisandoo ay alkaati yu ñu yónni ñoo fekk ma sama biir oto toj oto bi jour boobu munoon nañ ma gaañ-gaañ bu métti ndax xottu butéel yi dal na sama kaw munoon a dugg sam bët munoon a dagg sama baat loolu lan moo ko gën a garaaw ci violation des droits nga ñëwaat ñii ànd ak man sax di ay attekat di ay avocat façon toroxal bu ne ñu ngi leen koy teg ma leen di gërëm di leen sant seen taxawaay ndax bëri nañu macha allah te amu ci kenn ci ñoom koo xam ne fayeeku na ma kenn gëm-gëm bëgg dëgg moo tax ñu topp ñu ñu may jàppale waaye gis ngeen ni ñu def ci suñu tubaab boobu nga xam ne dafa ne cëpp ñu dugalaat ko ci avion ne ko ñibbil suñu mbokk burkinabé boobu nga xam ne woo nañ ko di ko menacé parce que bu bés bi ñu bëggoon forcer procès bi ne dañ koy téye li avocat yëpp la def li avocat yëpp def la def mooy taper sur la table ne du fi amee gis ngeen li bëri ci samay avocat tey am nañu ay procédure ci baro bi tentative d'intimidation parce que kenn warul am sañ-sañu defendre défendre Ousmane ko dans ce pays gis ngeen nit ñi nga xam ne sax dañ may faj natt bu buñ leen teg docteur yeeg sage-femme yeeg nangam nangam ku nekk woo nañ ko ci police ñii ñu defal leen bracelet électronique ba ci ndaw su jigéen soosu nga xam ne defe naa béninoise dañ ma wax nga xam ne deful dara dul ñëw naa asalaamaaleykum waaleykum salaam. noo tudd no sant ñaataat nga am est-ce que am nga ay antécédent jabet nangam nangam mu bind foofu lay ñu takkal ko bracelet électronique lu kenn mësuta gis gis ngeen it suñuy militant liñ leen singale ci biir réew mi jamono ji may wax tembe am nañu ñetti téeméer am ak juróom fukk ak juróom ci ay militant Pastef yoo xam ne Macky Sall a leen teg loxo ba pare ne ma da ngay ñëw ñu négocier ci dara lu dëgg nag ku bind sax sa xalaat ci Facebook mu ñëw jàpp la. gis ngeen it euh, ni ñuy gaawantoo ci dossier yi. yow nee nga dem nga première instance le 30 juge wax na li muy wax. juge boobu d'accord ma ak àtteem ah, ma profité wax ko d'accord ma ak àtteem d'abord agressé nañ ma feebar naa tëdd na samay avocat ñëw andi ay certificats médicaux mu ne du ko jël loolu pour lan ñaareel bi li mu def mooy li tubaab di wax couper la poire deux ah ñee de xam naa ni trois mois la ñu bëgg pour waa ji bañ a mun a nekk. Euh, candidat du ma leen jox trois mois waaye nag il faut ma saxal leen dara man gëw ma ni noonu la ñuy attee sooy attee bu waa ji defee condamné ko bu deful bàyyi ko yàlla xam na ni defuma kon def condamnation naan deux cent millions depuis quand la ñu mus a gis diffamation ñuy raaj nit deux cent millions fii senegal fan lañ ko mus a gisee ñoom ñu naan ay juge Pastef laak nangam nangam man de xaw ma ko musuma koo gis njort naa nag ni juge bu sérieux la peut-être dossier bi diisoon ci pression yi mais bu ñu jàpp ni d'accord nañ ci jugement bi de gis nga man du ma ramener les choses à une question de éligibilité na nekk candidat ñu bëri bi ñu leen ne lii rek dañ ne alhamdulilah tant que nekk na candidat rek ñi naan man mun naa fay 200 millions déedéet fukki dërëm du ma ko fay waa ji bu yóbboo mu toog foofu di gént kon d'accord maag jugement bi et je le dis. c'est pourquoi samay avocat dugal nañu li ñu war a dugal ñoom it ci àjjuma bi passé ñu ne premier dossier ba ñu ne enrôle nañ ko pour le 16 ci loo xam ne am na ñoo xam ne depuis ñetti at ñeenti at ñi ngi chambre criminelle di xaar woowuñu leen ñu ne kur que kur tey foo ñu woo faw ñu woo Ousmane Sonko parce que jàpp nañ ni dossier yi nu mu gën a sakkane dina am nañ ci am li ñu bëgg bu dee nag Sénégalais yi nangul nañu loolu Macky Sall man li ma dal yépp Sénégal ma bëgg Sénégal ma ko dal man li ma dal yépp bëgg Sénégal amul lenn loo xam ne ci man la te yàlla xam na ni senegal jaral na ma lu ne waaye nag day am fu muy toll askanu senegal ñoom seen bopp ñoo war a xam ni bu la yàlla joree joxee dara nga am yaakaar ni lii mun na soppi sama ëllëg yow yaa ko war njëkk sàmmal sa bopp lu ko may rek dañuy wax Cheikh Anta di wax Thomas Sankara di wax keneen ak keneen Macky Sall ci tànk yooyu la nekk beneen bi nga xam ne am na te ma waxoon ko Sénégalais yi mooy le 16 bi ñu ma attaqué dama leen ne dañ ma doon essayé faagaagal dañ ma doon essayé rey coow li bari woon na lool waaye man nekkoon ci biir oto bi lañ ma sotti ma noyyi ko ak fi ma yóbbu bët gisatul mënatoo nooy biir di daw ci saasa man xamoon naa naan dañ ma doon bugg a rey man xamoon naa ko léegi nag yónnee nañu ba am analyse analyse yi dikk na te fañ ko yóbbu laboratoire bu ndaw analyse yi nee na produit bi nga xam ne moom la ñu gis foofu produit la boo xam ne kuñ ko sotti mën nga dee ci saasa loolu jeexal na wax ji leneen li ñuy wax yépp waaw fu mu jëlee produit bi est-ce que dañoo def scellé normalement kan moo yóbbu yére beeg nangam amul solo ndax yére bi fa ma nekk ci laboratoire ma nga fa ba léegi saa su ñu commencé une procédure judiciaire ku bëgg a dem foofu soo bëggee def exper contre expertise wala loo bëgg di nga fa fekk yére bi ndax yére bi fii yépp la sotteeku woon ak ci mbagg gi donc affaire bi des na fa mu nga fa bëri sans compter li nekkoon ci li daal li tisoon ci maître Clédor Ciré Ly donc ñun am nañu suñuy échantillon tey fàttali ko li ma waxaat ñi ma bëggoon jàpp nañ suñu benn xale bu ñuy wax yargasi nga xam ne bëgg na ma fu bëgg yem ku ma gis may dem aéroport moom ngay gis mu ne sama gannaaw ku ma gis may daw léeg moom ngay gis sax ci kaw mu yor drapeau bi Abdou Karim Diop dem jàpp kooku naan moom moo doon essayé rey waa ji